Euh, ci ndimbalu ak njàppandalu USAID euh moy euh, jëm waxtaan ak euh, askan yi nga xam ñoo nekk ci biir collectivité minière manam ñi nga xam ay ay ay ay ay askan lañ di dund ci zone yi nga xam dañuy exploiter walu mine muy or muy phosphate ak yenen ak ñi nga xam également dañu nekk ci djégé djéj yi nga xam ne dañ fay bëgg exploiter gaz wala pétrole lu mel Sangomar lu mel Kayar lu mel également Saint-Louis ñu nag sunu position mooy taataan xalaat parce que dañoo gis ne kat am na fu xaalis yu bari, yoo xam ne ay milliards yu bari. gouvernement mi ngi ko annoncé jëlee ko ci exploitation minière mais tey boo interroger population yi nga dem tey Mako dañaan la gisuñu dara nga dem Sabadola ñu ne la gisuñu dara nga dem tey Daaru Xudoos ñu ne tey ñoom ils sont impactés gisuñu dara nga dem Mboro la même chose nga dem Taïba Ndiaye la même chose donc ñu neen forum civil donc xaalis boobu anamou, fan la dugg kan moo jot est-ce que collectivités locales yi dañ ko jot dugal ko fenn est-ce également

est-ce que état fonds yi muy wax dafa opérationnel est-ce que collectivités locales yi jot wala jotunu wala est-ce que également population yi dinañ euh, euh, euh, war nañu xam xaalis bi fan la ak fan la warta dugg donc tey jii nii ñu ngi li ñu wax fonds minier parce que ginnaaw bu ñu défé tour du Sénégal formé observatoire yi nga xam ne ko mettre en place muy observatoire territorial pour le site extractif former également plateforme yi nga xam ne les plateformes FCM femmes des collectivités minières ci fonds minier jàpp nañ ne kat am na fonds yoo xam ne état bi neen dugal na ci xaalis mais boo demee terrain bi doo gis dara tey ñu formé ci fonds miniers yi les quatre fonds miniers fonds de fonds de péréquation fonds d'appui au développement local muy fonds euh, euh, euh, de développement local muy fonds de de secteur minier ak fonds de réhabilitation bu ngeen formé après ñoom dañuy gis gis seen bopp mën a juger seen bopp tey ci ngoon également dañu waxtaan ak ñoom ci wàllu recette yi nga xam ne war na dugg ci gafaga état bi jóge exploitation hydrocarbures m'ur gaz et pétrole déjà loi de finances annonce 53 milliards pour 2023 Nous avons estimé am nañ expert énergie nous dañu wax estimé la moyenne base de de calcul est-ce qu'on maîtrise ce qu'on appelle le coût le le cost oil le coût pétrolier donc lolu euh, moy débat dinañ ko def débat également cest ci ngone suba li nga xam dañ koy ñak manam ci c'est secteur extractif bi dañ expert bo xamné dañu wax la mo exonération fiscale wala exonération douanière ci biir euh, secteur extractif donc loolu yëpp nañu waxtaan jël recommandation yi nak da koy jëbbal ci ben grand dialogue bo xamné ne ñu ngi préparer préparé euh, ak des recommandations fortes jëmale ci gouvernement bi pour que enfin on espère bien que li ñuy exploité ci mine ak li ñu war exploiter ci gaz pétrole mo amal njëriñ askan wi mais pas population yi di génn toujours di xeex di laaj seen yelleef ak seen seen droit